tout cas, on vous, vous avez été limogé. Non, je n'ai été limogé, j'ai été démis de mes fonctions. C'est quoi la différence Ah, il y a une légère différence, mais ce n'est pas grave, vous verrez ça après. Mais <laughs> la de Non, non, été <laughs> démis de mes fonctions. Euh, euh, vous avez été, moi je préfère dire que vous avez été limogé. Alors, bi nga amee, am bi nga bi mu la da ngay dem. bi mu wóoree ne da ngay nekk candidat à l'élection oui. présidentielle. Pourquoi nga déclarer sa candidature xaar que Macky Sall jël décision dindi la. mais chacun a pris ses responsabilités madame qu'est-ce que vous voulez deux adultes responsables conscients man ma déclarer sama candidature moom mu man samay déclaration sama candidature li ma ci wax leer na dama ne dëkk bi dañ ko war a soppi ni muy demee demul yoon wax dëgg. ndax dama ko xool pendant cinq ans xool li si am génne wax ko mu xëy ne ma retiré naa la. nommé waat euh, keneen mais c'est son droit le plus absolu. mais il est il est même cohérent. mais <laughs> il est même cohérent. mais il est cohérent. il il est cohérent peut-être que c'est vous qui n'avez pas été cohérent. non mais pour président de la République. dénkee liggéey le président de la République dénkee liggéey. nga liggéey liggéey nga am un diagnostic nga am un sentiment. sentiment boobu nourrir une mais ambition madame, présidentielle ce débat sur la une ambition présidentielle non c'est pas balaa balaa balaa balaa nga koy taxaw di ko jëmal danga nga koy jébbal mu la jox madame nga moom sa bopp madame je vous explique dég nga nga baal ma soxna si nga déglu ma déglu bu doon ambition bi moo tax may dem du ma liggéey parce que c'est à 17 ans que j'ai eu l'ambition d'être le président de la République et je l'ai dit au président Senghor les yeux dans les Il m'avait invité chez lui. Il m'a dit, vous serez un grand général. Je lui ai dit, non, je serai un grand homme d'État comme vous. donc bu doon ambition bi date bi ma ko amee laay toog ne damay banque sama loxo du ma liggéey pour état du ma liggéey pour Abdou Diouf du ma liggéey pour kenn loolu amul sens jël naa samay responsabilité bi ma gisee ne Sénégal doxul ma jóg ne damay dem mu ne ma demal alhamdulilah rabil alamin maa ngi koy remercier bu baax si occasion bi ma may ma servir le pays y a pas de polémique il a pas de débat muy def def naa li may def c'est à l'histoire de nous juger ëllëg allah